pôle bu daaru xeeru ngor mi ngi xeeru ngor a ngi léegi ñu yoon alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah ginnaaw bi ñu sante yàlla julli si yonent bi di sant suñu ñaari waajur di nuyu waa daaru Cuub bi nga xamante nii fa la ñu waree mm-hmm. waaw di nuyu ñi ñu fekk si plateau bi yëpp tamit ku ci mel ni Laxaat Njaay grand bu ñàkk ki ñaan boo ñu ko xamee ba léegi dara ñaawul billaay wallaay te mënoon na ko see bañ a fekk ak suñu parrain bi Tafa ak Modou mbay maa ngi lay nuyu di nuyu promoteur bi tamit waaw di ko ñaanal jàmm moom tamit moom tamit sonn na ci combat bi barki Seydina Mohamed mm-hmm. li ciy séentu yàlla nañ ci gis lépp yàlla si dara leer incha allah di nuyu suñu grand Bamba Faye mm-hmm. di nuyu mbër yi fi nekk su mel ni Xeeru Ngor Vito Boy Waalo ak Karbala ak Ndoy Vitamine mm-hmm. di nuyu sécurité bi waaw di leen jaajëfal tamit wax ne li ngeen nekk métti na trop yàlla si yàlla teg suñu père di ko nuyu bu baax a baax di nuyu suma adversaire di ko war naa dal jàmm waaw adversaire nuyu na la fay ko. waaw bisimilah rahmaani rahim. aouzu billahi mina seytaan mm. sant yàlla julli si yonent bi sant sumay ñaari waajur. Mm. di ñaanal suma waajur bu góor yàlla yërëm ko xaari ko aljana. di ñaanal suma waajur bu jigéen yàlla bàyyi ko fi ba mu fekkee suma njariñ di nuyu kilifa yi fi toog yëpp. di nuyu suñu parrain bi muy Tafa Booju. Mm. di nuyu suñu nijaay Abdoulahat Ndiaye. di la nuyu yow Modou Mbaye. Mm-hmm. xam nga di nuyu promoteur bi. mais damay gërëm Bamba. Mhm. li tax ma gërëm ko mooy yaakaar naa moom ma njëkk a tëggal drapeau spécial. ndeysaan waaw loolu duma ma ko mës a fàtte drapeau yi mu sama néeg ba léegi. Mhm. kon dama koy gërëm parce que participer na si sama carrière. macha allah di nuyu mbër yëpp di nuyu sama adversaire Paul bu daaru di ko mhm. ñaanal jàmm. xam di nuyu doy vitamine di nuyu Vito di nuyu sama doomu baay Karbala ki ay doom baay lañ. waaw di nuyu aussi booy Waalo. waaw di siyaar tamit sama papa commandant di nuyu sama papa Matar Ndiaye. Mm-hmm. sama papa la. Mm-hmm. li ñu seex du làmb. macha waaw maa ngi koy nuyu di nuyu ñu ma àndal. Mm-hmm. waaw ku si mel ni Xaadim Ndiaye xama Assane Gueye ak RTS Ndiol mi. RTS eh, di nuyu sama waa. borom mat leen nuyu sama waa écrit waa Ngor di nuyu waa Ngor gépp macha allah ba drapeau ngeen di bëree waaw. waaw di nuyu suma gars yi nga xamante ne ñoom laa àndal ñu ngi si suuf di nuyu suma entraîneur Modou Fall ak waa équipe jëf soog a nekk bi yëpp commune Jaxaay bi duma wootee damay juum ñëpp maa ngi leen di nuyu waaw. drapo Tafa Buju ngeen bëre un jeune bu nekk ci làmb liggéey ci ba làmb di ko sargal loolu leen wax ci loolu. waaw kontaan ci rek ndax tamit di bëre drapeau mu nekk xale ni yow loolu day neex ba pare ay xale di ko bëre ay jàmbaar di ko bëre kon loolu noonu day neex daal waaw. waaw loolu moom mbégte la parce que yaakaar naa ne adduna moom ku yokkul da ngaa wàññi. Mm. te buñ tuddee drapeau koo xamante ne si làmb lay yëngu yàgg ci sonn kon yokku nañ. Mm-hmm. waaw kon loolu noonu mbégte la. Mhm. dañuy ñaan yàlla rek moom mi am sutura mu suturaal ñu jël ko waaw. tàmbali nañ xamante ngeen vous vous connaissez bi j'espère xamante ngeen yéen ñaar. waaw xamante nañ bu baax. Paul da ngay waxaale. xeeru ngor waaw xam naa ko nii nii rek mais bu suñ combat taxee man moom comme li ma ku ma amal combat dama lay lijjanti. lijjanti jàllee nag jeex na lijjanti naa ko trop pire. waaw loo loo gis moom rek mooy sama yitte. Mhm. waaw. xeeru kii loo xam si moom. waaw xamul làmb laa ko xam parce que nit kenn mënu xamul làmb laa ko xam te xamul làmb laa soxla xam ci moom parce que làmb lañ séq. li ma bëgg a xam ci moom ci xamul làmb xam naa ko. Hmm? waaw. Modou. combat bi li ci des yàggatul de. une semaine moo ci des. waaw tey la lan jeudi. Hmm. dimanche bi di ñëw bis topp la. fu jëf taxaw nag wax am fa place. Hmm. mais tey wax la indi. wax moo ñu indi mais dinañu wax li li nga xam te mooy licenciaire bi mooy ci bis bi. xam na la xamul làmb. waaw te xamul làmb mooy. kii maanaam li mu la wax noonu juumul le kii suñ combat waroon nañ ko bëre bu yàgg ma ak moom. ci kan la yéexee ma koy mosaw nag. ma koy mosaw bu baax ndax loolu du du du kii am quoi du coobareem. du coobareem comprendre nga ndogal moo ko ci dal combat bi yàqu. nag li xamante ni dama ko jàpp doo ko sama maayande dañoo war a bëre maa yow léegi a bëre boobu waruñu woon léegi lañu war a bëre te dinañ bëre incha allahu di ñaan yàlla ndam lu rëy sa kaw waaw loolu moom yaakaar naa du ma ci waxaat mm. parce loolu suñu ginnaaw la nekk comme li mu wax rek mm-hmm. am nañ combat man moom dañuy bëre loolu saful wax ñu lekk xaalisu jàmbur duñ bëre loolu laa mën a nekk. maa la wax lii. waaw dañuy bëre loolu jarul wax de. mais xeeru ngor moo xam la moo tax wax ci loolu. waaw dama ko seetaan benn interview mu wax ci loolu. man ba tax ba léegi génn ma si média di wax maa ngi sama roku di tëran ceena sama roku lu may xaar mooy jour si at bi wàccee loxoom sama diggante ma ak xeeru ngor. moo kuñ laajul doo tontu. déedéet dañ maa laaj ma tontu si. Mm-hmm. yaa ngi comprendre. Mm-hmm. am na loo xamante ne su ma ginnaaw nekk man kenn xamee ma daaga sante mm-hmm. man su ma ñëwee jëf laay gën a mën a wax. làmb yëpp xam nañ ma. Mm-hmm. man du may waxantu. kii su ma nekk dinañ jëflante na ko gëm. combat bi moom laa gën a fonk si combat yow mos a bëri. tolluwaay ban la combat bi am ci seen carrière ci fi ngeen man de xam naa fi mu toll suma carrière man. xam nga fi mu la mën a yóbbu fi a yóbbu xam naa ko. moo soxlaaw ma foofu. Modou fi ma yóbbu soxlaaw ma ko fu ko raw laa soxla. Modou Modou. damay nuyu sama papa bëggul mooy tudd turam ci télé mais moom su waxee xam na donc doy sonn ci Paul barki Seydina Mohamed day war a joxe këram xaalis jël xaalis boobu def ko ci man. maa ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla mu dund ba fekkee njariñ li. amiin est-ce que li mu wax. li mu wax kii li muy wax maa koy dégg. dégg nga li mu wax naa wax bu baax a baax a baax. tolluwaay fi combat bi toll ci moom. combat de déclenchement la ku ci yox yox yi da xaar. Ah. bopp Paul bu daaru. moom dugg ci boppam man loolu dugg na sama bopp. Boy Niang Brise bi ni bëre ni yéen lañ tolloon. man Modou Mbaye man li nekk sama ginnaaw dafa diis man tëdd fil écurie olympique de Ngor. yow tëdd fil bi maay may wax ak yow. yow yaay tëdd filu te nekk xale bu ndaw. yow yaay tëdd filu jëf ko nekk. waaw laa ilaaha illallaah boot ñaari gox. boot ñaari gox kii boot ngor. kii boot euh, daaru cubbu. man dama boot ngor dama dama boot ngor. ba hmm. pare tànk yaakaar ma. tànk mooy ngor wakaam yoof waaw lëbu dañu am si man yaakaar le géant di cap lañ may woowee dañu am si man yaakaar bu rëy yaa ngi comprendre kii man ak moom ñoo war a jëflante le cinq dafa bokk si carrière bi man carrière laa pare pour def dafa bokk si carrière bi dañuy jëflante après leneen la ñuy wax mais man dafa am lu nekk suma ginnaaw lu foor a foor a foor mooy ay dëkk ñoo ma yaakaar ay dëkk ñoo ma yaakaar ay dëkki dëkk damay romb ngor hmm. dem su ma dëkku maam gànjaay dañu am si man yaakaar bu baax a baax dem fuuta seedo seedo yi dañu am si man yaakaar bu baax a baax hmm. barke Seydina Mouhamed booy booy bi génn faral xeer bu ñu demee fuuta ma dalal ko ci fan mbaɗa salmina bandiraɓe haalpuraɗo foof kala mbiyowo mbimi mbimami mbaɗa nodduma oɗo combat garam mballakam <laughs> eh? hakkude ngor suñ demee fuuta ma dalal la am fuuta yow da nga baax buñ demee fuuta ma dalal la gànjaay go ngay wax sa maal li ngay wax nii li ngay wax du Paul gànjaay gi muy wax mi ci wetu kaw la Mourou Mbaye li mu wax nii su ko li mu wax nii su ko waatee si ndamam day ñàkk su ma yaay fuutal dëkk sama pap fuutal dëkk sama pap ak sama yaay ñoo bokk benn sant yaa ngi dégg ñun ay tooroodo lañ. ay léegi sama ngaari jàmm yaa ngi dégg xam na loo xam te ne la. yu ma moo ji baaba moo foofu ñun ngor lañ juddoo yaroo ngor màggee ngor mais dama lay wax ne la Fuuta mënoo faa dalal. xeeru maa dafa ëpp ay mbokk téeméeri junni yoon. ay tafa bu ñu demee Fuuta ma dalal la dalal ma Fuuta mais bu ñu demee Pikine dinaa la dalal ba nga dal. Pikine yaa may dalal yow. dinaa la dóor ba nga dal. aa ah, ah, voilà fa laa bëggoon dem xeex bi. wuy ma xeeru kii de xeex xeeru noo dégg bët déglu ma yow laay waxal dama bëgg nga xool ma ci bët. Paul su ma lay xool nii amul sens déglu ma waaw déglu ma wax la wax ju bëri ji amul sens de yow Pikine yaa may dalal yow. bala 5 incha allah. bañ yegg ci. bala 5 incha allahu rabbi. man de wax dëgg na yàlla maa ngi door a ñëw si signature sax di wax di nga da ngaa da ngaa yenu loo lan laa yenu lu ma antanut Paul ñi ma ñi ma yenu ñoo gën a metti Fall bu ma gis nii de yaa ngi wax ay waxu tolluwaay man waxuma si tolluwaay waxuma ay tolluwaay bu ma gis kon bul wax na ay bu ma gis nii yow mënoo am sa jëmm lu mënta nekk suñu jëmm ñun sa jëmm ji lu si mën a nekk mën a nekk suñu jëmm lañ gis nga xeeru gor bàyyil wax boobu xeeru ba lamb ji tax bi si média yi musoo maa si ngay wax musoo maa koy seetaan musoo maa lépp seetaan naa ko da nga mos a dégg toog youtube nga gis Paul bu daar wax ci yow musut am. kuñ laajul ah. doo tontu. musut am non non mais buñ la laajee yow suñu combat. yàqu na ma laajee man ak yow ñooy bëre dama siy wax. xam naa ni waxuma ci du ci wax. man. na mënoon na ma dal la dal man damay wax li am. loolu jàll na léegi a bëre. waaw kon bu fi indiwaat loolu. waxal ci li ñu war a bëri da nga see wax moo tax waxaat ci. non yow ci njëkk a wax. non dama la seetaan léegi su arbitre bi ne prip yee ñaa ku njëkk a dóor sa morom. man de ñaakuma fayra. ab li ngor la ma dëkk. <laughs> xeeru maa ñàkk fayda yàlla ma yàlla ma sama bopp laay wax de boobu mën ngaa ñàkk fayda sama bopp laa xam xam xam ay xam ngeen ni yéen ñëpp ñun booy a dóor yaa gañe moo man la ma dëkk te ñàkkuma fayda loolu daal mën nam kaa wax daal fii laa dëkk ma dëkk lamb ji amul loolu ma dëkk ñàkkuma fayda ah? am na fa 1 0 2 0 lay doon lamb ji dama lay daan bañ yegg ci kàttanu suñu borom bañ yegg si mënu ta nekk 2-0 2 lay doon mënu ta nekk 2-0 ta nekk 2 mbër mu dëkk Kër Massar dëkk Kër la laa la wax man pour fa mbër ay njool waalo yëpp topp laa leen yóbbu ma leen laaj mooy yow ñaata kaar nga man man réew mooy topp suma ginnaaw mënu ma calculer man xaw ma instant bi wàllu wàllu mobilisation bi xaw ma si dara. mais préparé nga lu mat discar. man xaw ma si dara xam moo tax tey damay nuyuwaale au passage man dama bokk si mbër yi nga xamante ne tey dama koy ñaanal moom loolu ñaanal ko mbër yëpp man dama am sponsor. en dehors làmb man suma assistance mooy suma sponsor. ok mu ngi fii si ginnaaw. ok suma papa moo ko moom muy docteur Niang wax ko waxal nu mu tudd muy docteur Niang borom suma assistant ñu ngi koy gis ok sa sponsor la suma sponsor la depuis depuis deux mille deux mille dix neuf ba léegi macha allah làmb ju ma am daf may defal ay blouson may ma xaalis bu dul jeex su ma bëree pare may ma xaalis bu dul jeex barke Seydina Mohamed te damay toog chaque fin du mois wala deux mois mu envoyé ma xaalis te liggéeyul ma mbaa ñu ngi lay faj ñoom ñu ngi lay seet sa yaram mutuelle de santé laa fa am ku bokk si man sax bu feebaree bu demee dañ koy léegi yow loolu ci loolu nga am foofu mm-hmm. favori boobu privilège boobu mënoo ci jàppale sa moroomam moo tax ma ne dama leen koy ñaanal ñoom ñëpp amiin dama leen koy ñaanal ñoom ñëpp parce que tey dañu nekk ci secteur boo xamante ne tey dañuy man mais mën a di day ñëw mais mutuelle bi nga nekk mutuelle de santé bi nga fa am tey ci sa tur yooyu ay mbër mor nañ ci mën a faju loolu yëpp lu mën a nekk la mais xam nga tey connaissance mooy indi lu ne xam nga tey pël bu daar ñu ngi war a bëre mais xamante wu ñu woon après làmb ji xamante day am waaw parce que man koo mës a bëre bu ñu bëree par damay dem sa kër aca solo woote leen waaw am na solo nice comme li mu wax noonu dëgg la maanaam loolu geste bu rafet la quoi di ko remercier si côté boobu tamit mais xam nga comme li mu wax noonu tamit man noonu laay joobee man su ma bëree ak yow ba pare muy défaite muy victoire après jàmm laay seek ak bu ñu bu ñu waree def demalante nii sax dañuy demalante aw ma problème boobu. mais bu ñu nekkee si commune koo kii bi nii si xare bi nii dañ koy xare ah. amul négocier amul dara. du yomb. voilà acca woote leen. waaw rek wooteel bisimilah. waaw man damay waat waa Ngor rek. di woowaat waa Ngor di leen wax ne. seen doom ji seen doom ji génnati na seen doom ji jugati na mosuma dugg ci làmb mbër ëppal ma mbooloo mustaam yaakaar naa su ma ndijaay bu may tëgg spécial boobu mooy ma première may mobiliser su boobu lu mu dee dee jënd naa ay 4 bol ak 5 tey su ma ñëwee ba war a bëre grand combat toog si kaw tableau bi yaakaar naa kon kenn waratu ko wax bii yi nag man géré ko dafa am ñu ko géré waaw muy ay docteur ñaa ay le maire de Ngor Mame Gueye Ndiaye xam nga ay Antou Samba ay Amadou Gueye Ati ay suñu ndijaay borom Noflaay Bits Tra xam nga suñu ndijaay borom la Ngor Timis ah la Ngor man foofu laay liggéeyee Timis xam nga ñu leen di woo di leen wax ne ñu lu ñu jàppale doy. yow xam nga mère aji bi nekk point. kooku suma yaay la. Ah. ah kooku moo sama mag bu ma bokkal ndeex baay ñoo màggandoo sama la sama mère la mère aji. mais aka mën jaay jën. waaw aka baax. aka baax. barke alxuraan xaalis bu bari lay maye. ñu ngi koy woo ci combat bu baax a baax li ko wax ne doomam mooy bëre. incha allah di wax waa Ngor gépp na leen taxawaay bi ak ñaani di woo ñëpp aussi le premier si open press bi. ah le premier la le premier open press bi. mais Jibi Ndiaye dama koy ñaan benn affaire te yàlla tax man dama bëgg jour làmb ji nga indee sono si suuf parce que man su may baaxu ko sama nijaay wax man su may baaxu piano laay indi kon dama bëgg ñu indi ma sono bi si suuf parce dama bëgg a wàcceel stade bi. cey loolu. waaw parce que bu ma defee teg ko loxo teg ko loxo waaw del sangu del sangu del sangu del sangu set mu nekk rap cekit rap cekit rap cekit rap cekit. cekit cekit. kenn kenn kenn kenn kenn ta ta ta ta ta ta ta car gi car kees kees loolu dama ko war a wàcceel esat xam nga fan la ko may ma sama jàmm laa la wax nga naan ma ne xam nga fan la ko daanele ca càmba ce gees gees la ko daanele waxal si loolu lamb maanaam lamb waay waay tàcc na loolu waay waaw waaw loolu rëy na. moo làmb dafa war a neex. dafa neex. te wax dëgg neex yàlla ñun ñoo toll fu ñu war a neexal. neexal làmb billaahi. xam nga tey dañ dañ dañ toll si moment boo xamante ne maanaam suñu suñu suñu suñu culture bi. waaw mu ngi bëgg a yàqu. dëgg la ñu ngi siy boole yu si bokkul. waaw léegi il faut que ñun ñu may amateurs yi loo xamante ne dañuy sawar di dem stade. eh eh tëggal sa baaxu yow. amul baax parce mille fois maa la ko dàq fecc man musuma andi fan ke baaxu moo sa fecc mais su ma ñëwee damay baaxu ba ñu yaakaar ko répété moo musuma indi orchestre stade. moo mais bii di ñëw bii grand combat kay bëre. moo le laa def open press. moo le a laa def open press ah, ah. yow le Karbala le Boy Waalo. man ma ko jàppee yàgg na ji ji bi yaa ngi nii kañ laa ko envoyé woon press. man nga changé bés le premier du ma changé du ma changé de jàpp nañu ba pare ñun. waaw mais dina am boo yoo xamante ne nii Modou Mbaye dañuy sonn eh, xaar ku doon woote xaar mu yeggali waaw yàkkamti bu jour ba bu ma la daanee pare pare nga dem loxu nga wax yi incha allah munoo maa nelaw loo booy woote leen booy mun laa maa nelaw loo booy sëy dañuy dem patrouille booy woote leen en chef da nga di woo waa Ngor wax di wax ne ñun waaw ñun amuñu lul Ngor waaw amuñu lul lébu gi parce que si lañ nekk si lañ juddoo si lañ yi si lañ yaroo mm. di wax ne moo leen ñu jàppale waaw frein yi nañ ñëw jàpp si. suñu ndiyaay Abdou Karim Ndiaye borom black and white na ñëw jàpp si. xam nga di woo autorité yi nekk Ngor di woo tamit ñun benn autorité bu mag lañ am muy le maire Abdoulaye Diouf Sarr. ba léegi mooy maire Dakar parce que ñun moom la am ñun lébu gi. <laughs> nekkul eh, non nekkatul maire Dakar ñun loolu lañ gëm. Barthélemy Dias ay maire ñun lébu gi. loolu lañ gëm ñun yow mooy sa maire <laughs> xam nga dañ koy woo bu baax di ko wax na ñëw jàpp si yee parce que dañu bëgg a jënd ay 10 bolok parce que waa Ngor ñu ngi waaj bés bi billaay walaay bés bi dafa am ampleur si dëkk ba kon na si gars yi ñëw jàpp bu baax a baax di nuyuwaat criminels yi les premiers cadavres. criminels lan. waaw les premiers cadavres ñi nga xam te ne bu dee amee ñoo njëkk a dee mooy suma gars yi dañuy sonn si man depuis 2014 ba léegi barke alxuraan. man du ma wax ak dof. yeggalil yeggal bu ko faal bu ko faal. di sama gars yi waa dof dofati maa leen di gërëm di leen woo di woo waa vëdd bi. ka <laughs> vëdd bi waaw. di woo booy ruuñ bi di woo booy tarkindaa yi foofu ñëpp booy garage bi maa ngi di woo <laughs> bu rëy kii dañ ko war a ruube ba mu xam fa la a taxaw woote waaw woote ñëwal Paul jëngu maa ne aw ma seen fay <laughs> mention spéciale ñu ngi eh, nii si bunt bi suñu wàccee léegi ma sànni seen i mille francs ak seen i téeméer ak seen junni man loolu laa gis gisuma ay milliardaires yu nekk suma ginnaaw yaa ma dégg mais manqué ñu dara tamit suñu jógee dañu xam ne jóg nañ kenn musul ñëw fekk ñu si làmb noyé ñu kon loolu sant yàlla la ak fi ñu dëkk ku ci mel ni maaraacu bu sama bras droit mm. barki sëy day sonn ci pôle bu daaru grand laay Ndiaye saalam laay entraîné duma fay dara ba pare di boole di yëkkati xaalisam di ma jox yëkkati ay matériel di ma jox kooku aw ma fayam ku ci mel ni Pape Sow monsieur le maire mm-hmm. ñu ngi koy woo ci combat bu baax a baax ay buubu baax grand Chibéru xam nga ma la wax. Pape Sow mooy maire foofu léegi waaye na la jàppale a ngi noonu dina si ñëwee saat sax. waaw dina ñëwee saat. te ku yàgg a jàppale làmb la ndax jàppale na ay mbër. Pape Pape. déedéet non non Pape Sow bu Kër Ndiaye Lo ku daan jàppale Modou Lo sax. Mhm. bi muy bëree. usine ak usine doole ak usine doole. Ah. waaw comprendre nga. leen di woo ci combat bi di woo ay Ndiaye Diop. yaa may ñoom ñëpp ñu leen di woo di woo sama waa dëkk waa Fuuta maa ngi gis ñaan yi nañ gën a yokk uh-huh. xam di woo dëkku séeréer yi ku ci mel ni ay joof yor uh-huh. ay ñoojoor ay simal. xam uh-huh. dégg ay gànjaay bi muy wax. maa ngi woo ñëpp. wax gàncax wax noonu la non booy booy sëñ Touba booy noppil booy. gàncax sama mag yi fu dëkk si yow. Amady Ndiaye. yarul bàyyi boo duggee foofu yëpp dama ne la. gàncax cuppaan xalambaas ah mboxot dof foofu ma saayit la xamoo fa dara ay mbiru ngi ay kër alfa kër Martin foofu su ma gaañee. Eh, yooyu yëpp da nga leen di romb ci yoon bi melanguy. da ngaa am loo tënee kër Alpha kër Martin wax nga ay jurub. semaine passée la ay jurub kër Martin ah. mars sëñ Fallou nekk xaw ma fa. xaw ma fa eh, xeeru li ngay wax ni amul sens de. war a dal xam nga la moo am sens. xam la moo am sens jour lamb ji bu at bi ne pire ba gën suñ diggante ma ak yow li ñu war a def dinañ ko def. is naa ma dégg di woo ñëpp moom dama bàyyi ma woote di woo waa di woo sama benn mag bi nga xam ne dafa nekk Espagne ca la may jàppale bu baax a baax di woo ci combat bi ak Baba Diaw xam nga la wax ñooñu dañuy sonn si pôle bu daaru dañ may jàppale rek te yàlla tax di woo ñëpp daal ci combat bi di jox ñëpp rendez-vous open press bi ñu ñëw ma wàccee daaru le premier. yow woo Petit Mbaye ak Papa Amar. Petit Petit dama koy woo. Ah. <laughs> waaye Petit Petit mun a woo. Petit sama fils la. barki Seydina Mohamed dama koy woo bu baax moom day ñëw open press dama ko invité. day saan comprendre nga. Mhm. di nuyu père Bécaye tamit. Mhm. waaw moom tamit mooy loolu. dañuy daje mhm. daaru ci di saafonte. ndeysaan waaw bu ñëwee Oustaz noonu. waaw xam nga di woo Oustaz Alioune Sall tamit di wax mu ñaan bu baax a baax. Omar waa Daara ji ñoom ñëpp nañ ñaan. <laughs> naa jox tur bi su ko fii ngor da nga sonal sa tur xam naa ko bu yàgg sa waaw Abdoulaye ngor si mbeex ma yow dégg naa il la dëkk sa tur bu yàgg neex ñu finaan géej booy kii booy kii il ba lay fanaan fan yi yëpp di nuyu suma mag Daouda Anne bi sa si di ma jàppale moo yor suma lépp suma rakk kaaw macha allah macha allah suma jabar bu ndaw njaay moo may toggal ceeb par exemple laal ma ay ndambe man yooyu laay lekk lekk mooy hamburger lekk mooy pizza dama am doole te <laughs> dama am doole dama takk boobu moom am nga jabar yow ma dara max mooma yow ah, ah, ah, amoo foo wéeru moo tax amu naa ma mais toog si yow lii lan la ma ne moo eh, moo wéeru eh, wéeru eh, sa jabaru mag loolu dafa yóbbu na takk amoo foo wéeru yow maam Babacar noonu ñoom maam Babacar noonu la ñuy def a rey dëgg la sama yaay Aïssat Diallo e booy doy na eh, di woo <laughs> ñëpp di woo tamam yaay booy mu tamit Absa de waaw man damay waat kenn moo moo damay waat grand bi grand tafa mi tafa xam nga tax ma koy woo ñun ay tuut tànk la ñun ñu war a bëri drapeau am te ay ay ginnaaw ñu ñu bari ñoo topp suñu ginnaaw mm-hmm. bi yi dañ lay ñaan rek nga jàppale ñu si ñun ñun mbëri war a bëri du man kere man ak mbëri war a bëri. incha allah yee parce que tamit. ku ne soo ko ñaar wala benn. <laughs> non ñaar day bari. mooy loolu waaw. grand bi. loolu la job la job directeur loolu la job directeur lu la moo bu baax a baax sponsor dañ leen di gërëm. ak Cheikh Ba. sponsor yi. moo CDC am importance ci waaw parce que tey parce que tey làmb na làmb toll na xamante ne tey gisatuñu lu weesu ay Zador ay ñoom Alburax ay yeneen ak yeneen bareetuñu. dëgg la kon ñi ñu fi gis dañ war a ormal jox leen cër. xam nga dafa wax sànq lu am importance mu ne blouson yi nañ ko sol sa làmb ja mbëri fonk ñu loolu dañ ko war a fonk man fu ñu mësee so jox blouson su may ñëw làmba ji moom laay sol. ngeen ko parce que lii mooy lii moo tax ñu ñuy fay. ko kon nañ ko fonk. def leen ko mais di wax ne borom sponsor bi Abdou Aziz Ndiaye. na ñëw taxaw ñu nañu jàppale nañu jëndal ay billets. Mhm. message bi nag teg naa ko jàppale parce que ñun amuñu lu dul ñoom te ñoom tamit amuñu ñu dul ñun ñun seen njaboot lañ. mais yéen tamit en retour. day leen toog di ñaanal ñii nga xamante ni ñoo leen di jàppale. ay Abdou Aziz Ndiaye Abdou Aziz doomu Sénégal la nit la koo xamante ni réew mi rek ko ñor moo tax muy dugal ci loxoom da leen toog di ko ñaanal yàlla sàmm ko yàlla suturaal ko yàlla aar ko yàlla bu Aziz gis lu mu ragal lu ko nar a sonal yàlla na ko yàlla fànq ndax Aziz da nga jàppale la moom adduna mënoo fay def lu baax di sonn mm-hmm. Abdou Aziz Ndiaye mën na wee ngi waaru daanu waaw parce que ku yàlla taxawal mm-hmm. daaneel la yombul bu dee nit mën na laa daaneel sax la Aziz Ndiaye ñu mosuñu ko dégg si loo xamante ne lu lu safaan lu baax ko mos a rek ci la ne waaw kon kooku yàllaa koy sàmmal boppam bàyyi nañ ko borom waay waay kontaan naa waay moo waaw combat bi daal xamal la lenn combat da leen lay nekk pare da leen lay nekk bu xeeru ngor taxawee dëggal boppam bu taxawee dëggal boppam soo gaawee soo soo gaawee songu ma soo gaawee songu ma ma gaaw laa daan boo yéexee songu ma dóor la ba nga bàyyi kan ngay dóor ba mu bàyyi yow mën nga maa dóor yow yow xeer nga xaaral nga say fukk yow munoo xeex say fukk buñ taxawee buñ ngay wax ne waxu théâtre la eh, waxu may théâtre xeeru xam nga yow taxaw di xeex ak man loolu boo taxawee xeex ak man laa la wax eh. bu ma la dóoree déglu ma ak alxuraan da daw eh, xeeru nga ne sa baax bi nanate la ñëwal bi ne ma dóor la ma bàyyi loxo mu teg la loxo. nga naan nga naan deel sangu. deel sangu deel sangu deel sangu. nga naan xala wuraat saxin tabax. wuraat saxin wuraat saxin wuraat saxin tabax Modou Modou Modou pare guñu Modou Modou moo taxal wax la kii ni muy feccee rek nga xam ne yaram bi code kese la Modou Maye kii ni mu lim lim publicité fii nga xam ne yaram bi code kese la ba jour ba kii code kese ba